te dañ fi nekkoon tey ak euh, si madame le ministre Aminata Assome Diatta bi nga xamante ne mooy jiite ministre buy dem si lépp luy dem commerce ak PME yi euh, ak fédération nationale boulangerie du Sénégal ak rassemblement de regroupement de boulangers du Sénégal pour benn accord de financement bu jëm si un milliard quatre-vingts millions de francs fa pour jàppale boulanger yi jigéen ñi euh, ak kóor yi ku nekk am financement buy jëm entre quinze millions ba quarante millions tey. accord yi ñu signé tamit ak FNBS ak RBS dina tax ñoom ñu identifier acteurs yi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci secteur boulangerie bi ba nga xamante ne bu ñu leen joxee euh, matériel bi ak fonds de yi ak rénover seen euh, fu ñuy liggéeyee euh, seen liggéeykaay bi dina tax képp koo xamante ne jot ko ci financement bi à partir de demain ñu ngi liggéey ak BND pour que financement yi mën a taxaw avant même Korité bi di jot boulanger yëpp ñu monter leen. te it leneen lu ñu wax sànq ak euh, ministre yi ak ñaari président yi lépp luy dem si wàllu distribution bi tamit nañ ci taxaw pour jàppale acteurs yi euh, pour que mburu euh, pain mburu yi ñuy defar mu mën a am ci ay fànn yu leer ak si kaaraange yi wóor loolu bu weesoo madame la ministre jël nañ engagement bi nga xamante ne 2022 dinañ dugalaa yeneen 1 milliard et comme ni ma ko waxee fii ak 3 ans bu fekkee secteur bi réguler nañ ko acteur yi jouer le jeu toutes les régions régions yëpp département yëpp ak commune yëpp nañ ci def boulangerie moderne et mun nañ dem si enveloppe bu tollu cinq milliards si ay euh, diir yu gaaw donc loolu laa amul li may wax madame la ministre ba pare di la jaajëfal di la remercier yow ak say partenaires ak say services ADPME ak tous les acteurs du ministère de de du commerce pour partenariat bu nga xamante ne am nañ ko DER ak yéen si euh, wàllu boulangerie bi mais commerce bi. ak lépp lu dem si agriculture maanaam euh, campagne de la anacarde bu ñu defoon daaw nga xamante ne bëgg nañ ko yeesalaat ren pour dix milliards de francs CFA jëf